Mbadiar TV Mbadiar seen YouTube bi xew ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala ziar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement woote 76 TV daal ci kaw ca kanam abonné te bés cloche bi ngir mën a am bépp vidéo bu jàll ci Mbadiar TV 76 la 751 mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu comme ni ñu leen ko waxee rek xam naa dañuy daal di ànd ak yéen indi leen waxtaan woo xam ne sëriñ Dame Gueye dëkkoon ci Algérie moo ko wax ci dund ak liggéeyu ki nga xam ne tabarakallahu mooy Mama Gueye Njariñ xam nga waxtaan wi dafa yaatu ñetti parti la xam ngeen kilifa yi wax nañ ci da ngeen dégg sëñ Mbay sëñ Taala ci première ba ba ci deuxième bi ak sunu baay yu baax yi fa nekkoon yëpp tabarakallahu euh, comme nag dañuy bàyyi ak suñu technicien moo indi nu waxtaanu sunu baay alxaji Dame Gueye yàlla yokk leeram taas na ci barkeem di gërëm njaboot gi yëpp tabaarakallaahu sunu mbokkum bopp wax dëgg yàlla Cheikh Sow nekk ca njare dañ koy gërëm bu baax ci taxaw bi mu taxaw ci lii ba nu mën a jokk ak waa njare euh, mu ngi mel ne daal wax ci moom mi ngi mel ne yor sa pot dem ci géej tànq ya la ca tànk mooy la nga wax la des ci géej gi mooy la nga xamul te mënu ko wax fa tabaarakallaahu alaaji ma gi njare dafa bokk ci góor yàlla yi nga xam ne yàlla moo ko def ci coobareem ndax dafa juddoo njare waqe wax na ne bis bi mu gënee aduna ak sax bi dëkk jëkk tàkk ci Samba Sadio benn la 1875 1875 mhm, mhm. ne bisub alarba la mhm. ca yor yor. ne moo sox ba jëkk a tàkk ñoo ànd ñëw àdduna ak dikkam aduna ak sox ba ñoo ànd mu nekk fi nekk fi ba 1960. Mhm. mu mu wujji borom. Mhm. kooku mooy El Hadj Maguette Njare. Mhm. mi ngi juddoo Njare Waqe. ngi jàngee alxuraan Touré Atman Fall. ba mu ñibbisee. mu ne wax ne baayam da ko ñëwal jàngi. am nga sa mag ju nekk fii ci Daaru Njaay ñu wax seen Daaru Asan Njaay. am na xam-xam mën naa jàngale. waaye ku fa nekk da nga mën a nett waxi wali waaye xam-xam des koy ŋaax. mu ne ko Mourou Amath Seye. mi ngi fii ci ngen jege na la mën naa jàng. waaye ngeen dafa jege waxi soo fa demee. ngénte lu am nga ñëw ceet gu am nga ñëw njaal mu am nga ñëw. te génn bind baaxul ci njàng. ñëwal dem ci mur Ndiane Cissé ca ca Thiamène. rëbb ca coow la ku jàpp nga jàpp ko jàpp lit ku jàpp nga jàppale la. nee keroog moom yéen a laxasam ba ba tolloog armé li waqe. dafa japp julli ñaari raka ñaan yalla mhm. yett ñaan nako fa yalla mhm. ñaan nako yalla yett mhm. waaw moy lan ne boba ndox dafa jafé ci waqe mu ne suñ jigéen dem warak di dem ci tiani warak ya di ca rañaan di ca fanaan ñuy dagg seen goj yi ak leen yalla ma yalla dimbali ba jox ma ma indi fii ci waxee ndox mu doy sëkk. ab tuuti mu ngi ci mosal ba beneen yoon ñu indi leen ko comme suñu bàyyi bàcc gay ñu del si waat euh, suñu bàyyi daam gay ñu del si waat tabaarakallaahu euh, di imam euh, def na dëkk bi ñu bari xam ko nekk ci Algérie ndax itam tur yi di ko ràññee lu am solo la kon lan mooy jukko alxaaji magay njare waaw bàyyi daam jukkoy alxaaji magay njare mooy makaarimul axlaax mhm. makaarimul axlaq ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ku la tooñ nga baal ko mhm. ku la xañ nga jox ko mhm. ku la dog nga jokk ko loolu moo doon jukkaale ji ma ngi njëre ci ni mu ànde woon ak bokki dëkkandoom lu yéeme yéeme mooy lan sunu bay daam mooy alaaj ma ngi jëre sëtam yooyee nga gis ca ëpp alaaj mbay ak rekam ña ci ëpp ku ca dul alaaji mbay mhm. ku ca dul alaaji mhm. seen maam yi jur seen bàyyi ay murit lañu mhm. waaye sët yi nga xam ne doomu yu jigéen moo leen jur ñi ci ëpp seen bàyyi ay murit lañu lépp mas na koy def benn mag na ko yow sëñ Mbégi Njare da ngay fab sa njaboot gi di ko may ñu dul taalibe mu ne ko damaa dëkk ak samay bokk damaa dëkk ak Balla Fagi muy sama mag mhm. ma dëkk ak Ibra Maram muy sama mag mhm. te ñuy yaakaar Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul mhm. su fekkente ne sama doom dafa nekk ci kër Balla Fagi kenn du ma jëw ci biir kër Balla Fagi su fekkee doomi Balla Fagi dafay ci sama biir kër kenn du jëw Balla Fagi ci sama biir kër su doomi Ibra Maram nekkee ci sama biir kër kenn du ma kenn du jëw Ibra Maram bu doomi Ibra Maram nekkee ci sama biir kenn du ma jëw ci biir kër Ibra Maram fa tabaarakallaahu mu doon doxale noonu waaw parce que soxna Maram Ndiaye ñoo bokkoon fële mu nekkoon ci parcelle ñun yàgg nañ këram mu ko soxna Maram moome moo jur Abdou Ndiaye mi nga xam ne sët yi nga xam ne doom yu jigéen yi ñoo leen jur kenn laa ci xam ko ko mag muy Ibra moomu la Alaaji Taala doon wax ne moo doxee sàkkal ban ba tiyaawoon mag a mbuur di fita di tabaarakallaahu di borom xam-xam di nit ku baax di nit ku yu kookoo ci sët yi gannaaw moom moo ci mag ci sët yi nga jigéen yi leen jur fa tabaarakallaahu alaaji ma gi njare daf daan wax ne euh, Ibrahima junj na ko léegi dafa wax ne euh, seen yett bu mu xam seen yet seen yett bu mu xam seen soxla yu bari bu ko seen waxtu julli xam. seen waxtaan bu ko seen i xam. Mhm. seen loxo bu dëgër bu ko si jabar leen yàlla booleel xam. Mhm. daf daan wax ne it taalibe bi may wax yett moo a gënal bi ma ko wax. Mhm. taalibe bi may wax julli jot na. moo ma gënal bi ma ko wax. taalibe bi ma wax dem tool jot na moom a gënal bi ma ko dul wax. Mhm. taalibe bi ma wax dem Tiwaawan jot na moom a gënal bi ma ko dul wax. Mhm. ni ko Alaaji Taala wax na fa wax ne Tiwaawan ku fa ne boo fa sànnee gànju gi mhm. la gànju gi yër. ne a a sa suuti boo génnee yàlla jox lu ko ndax nee na keroog ba muy dem Makka ba mu tàggoo Serigne Babacar ba mu ñaanal ko ci biir Babacar nee ba muy génn neel paas bu ko indi Louga te bëgg a dem màkk waaw te bëgg a dem màkk waaye ne bi muy wàcc ci gaaru bu Louga ne mën naa yóbbaale ñett màkk kon euh, euh, sànni na fa gàncax gi salaam ñu dellu si ko bu yër est-ce que daana defit nee na bu demee Tiwaawan bu joxe Seydi Hadji Malick addaaya ba noppi di taalibe yi fi nekk am mu deen jox benn mag ne ko yow de da ngay yàq ñi mhm. ndax ñi nga xay nekk ñu daay bool nga di leen jox waaw nga di leen jox lii ngay li jox. waaw kon xam naa ñu jël ki ci ligne bi dañu bëggoon a xaar ba 9h waaye xam naa kon fekk nañu état ñu jël kon ñu bàyyi autorisé nañu may nu nag ba 9h salaamaaleykum mbokk mi allo. allo. waaw waaw kooku la. waaw man la Cheikh Cheikh Khary Ndiaye. Cheikh Khary fan nga wootee. waaw surtout El Hadj Mbengue maa ngi wootee Dijon. Dijon ci ban réew. waaw ma Dijon France. waaw yaa ngi France. waaw maa ngi France. waaw bisimilah kon yaa ngi dugg nga direct. waaw damay soxla woon Baye Dame bu mi ngi nii ñu jox la ko. waaw jox ma ko. waaw Cheikh Tidiane. waaw na nga def. Guèye Guèye Guèye Guèye. alhamdulilah. Cheikh. ana ñoom Alaji Papa. waaw ñu ngi fi alhamdulilah ak Modou Fatou ñoom ñëpp ñu ngi. bokk yëpp. dañ noo waxoon léegi ñun sànq rek nan dañu am benn émission bu gàtt wax na ko ñu ne xaaral ñu woote. waaw noo ngi waxtaan daal ci sama. noo noo leen di siyaar bu baax a baax nag. yàlla na yàlla nangul na siyaare. ci émission bi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax a baax. dëgg yàlla na ci yàlla kontaan Ndiaye. ndax euh, li may wax Madou léegi rek nag ko daal ñun xëy na amuñu lu ñu wax ndax. waaw wax dëgg yàlla ay gone lañu waaye nag. Mhm. bu fi bàyyi daam nekkee amuñu lenn loo xam ne moom la ñu wax. Mhm. ndax euh, moo la jàngal la. Mhm. bépp fa xeet xam-xam kon nag loo ci xamul nun daf ko xam. ah wax dëgg yàlla di kontaan lool nag ci émission bi. dëgg la. mënuloo wax dara nag lu dul di leen ci sant di leen gërëm bu baax a baax. ci yéen. ah dëgg la jërëjëf. noo noo ngi leen di siyaar bu baax a baax nag man ak Modou Fati ak papa. waaw ah. ak Ousseynou. wax dëgg noo leen di delloo kontaan nañu bu wax daal ci ko ci émission bi. noo ngi leen leen delloo siyaar ndax moom mm-hmm. day day xaw a xaw la dëgg la. ma tawee fii Modou Fati léegi ma ne ko nañu woote participer. dëgg la. ba bëkki dem sax xarit bi bàyyi taal jaam fi yàgg na ci loolu. wax na ko léegi wax na léegi wax na ko. ah doon na woote. ah na léegi. moom ngeen dëkkee na nga leen si baax baax laaj ma gi ñu am luñ ci xam am luñu luñ ci wax loo xam ne ni moom. dëgg la. ah lu ñuy guddal la ndax euh, wax dëgg yàlla man de wax dëgg ni li may wax ak toujours. Ah. man ci laa waaye ku ko gëm gis mu ko. dëgg la. ndax ay jëfinam ndax boo diggee maa ngi ni ñu waxee moom wax dëgg yàlla mënuñu ko teg lu wàll yu. waaw leen nit yàlla koo xam ne kii moom wax dëgg yàlla àgg na fa fa mu war a àgg daal. Ah. wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax nag ci émission bi noo ngi siyaar mbokk yi fi yëpp suñu mag yi El Hadj Mbaye Ndiaye ak ak Serigne Mara. waaw ak Baye Ibrahima Aminta. Mhm. ak Khalifa ak El Hadj Aminta daal. waaw ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf jërëjëf di kontaan ñoom di xam noo ngi seen gannaaw. waaw duñu rek ñu def. dëgg la ñun daal bu ñu xeet ci dara noo ngi ci seen gannaaw. na jërëjëf. Ah, jox la mu tufaati parce que nee bëggoon na waxtaan ak yéen tuuti ci émission bi. waaw baax na bisimilah. Baye Dame noo ngi si baax nag di kontaan lool lool lool nag wax dëgg yàlla. jërëjëf Ndiaye kontaan lool ci yéen nag. jërëjëf Ndiaye. di leen siyaar bu baax a baax itam bu leen fàttee ci ñaan ndax réew mi réew mi nekk moom wax dëgg yàlla dañuy soxla ñaan def des fois tey duñ leen xeebati dara buñ sañoon buñ sañoon itam fu ñu toll. Hmm. di dégganteeg yéen. dëgg la waaye xam nga réew mi dafa xool te réew mi réew mu saytaan la moo xam ne moom. Hmm. wax dëgg yàlla ku fi nekk foo toll rek yaa ngi muslu ci seytaane bëgg itam ah wax comme moom liñ fi nekke moom man mën nañ leen ko wax ndax ñun wax dëgg yàlla liñ fi nekke mooy jaamu yàlla ak gëm alaaj ma ngi def gëm tarixa bi ñu nekk itam muy tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bi tarixa alaaji Malick bi ah wax dëgg yàlla gisuñu lu ko gën a foor daal ci ñun dëgg la jërëjëf waaw liñ parce que ah waaw ñu ngi lay dégg bu baax wala ñu dëgg yàlla di kontaan lool nag bu baax a baax ci émission bi. yàlla yàlla kontaan ñu bu baax di am di dolli suñu wax dëgg yàlla di ko gën a bu ñëwee foofu di émission wax yàlla dañu ci kontaan kontaan ci lool nag lool lool. Ah, bu loolu weesoo ma jox la suñu mag bi fii muy Modou Fatick. waaw waaw bisimilah kenn ciy kaddu. waaw waaw jërëjëf. ñoo ngi kontaan baax nag di siyaar gaa yi yëpp nag bu ñu fàtte ci ñaan. Ah, ah, waaw jërëjëf. waaw ma jox salaam wa rahmatulah. sëñ bi am gay waay. bi. waaw <laughs> gay gay. sedd baa ngi ñëw de Ndiaye nanga def. gay na ngeen def ak coono yi. sant yàlla bu baax Ndiaye. ñu ngi leen di baax de. yal na yàlla santal nu boppam. tey sa taxawaay na. waaw yal na ko yàlla nangoo. li nga xam ci alaji mag yi bari na sax ay doom ñu ko ci xamul ñu mu ci xamuñu ko ci dëgg la dëgg loolu yàlla dogal na ko waxuma la ñun ñi nga xanaa ay sët lañ mhm, la jërëjëf dëgg na de non dagul de sëriñ bi dagul de ngi lay dégg ah dagul waaw dagul ñu yaa ngi ñi nga xam ne ay sët lañ ñun daanaka xamuñu ci dara mhm. yow nag yaa fi nekk yaa taxaw yow la fi euh, euh, alaji ma ji bàyyi woon yow la fi bàyyi alaji maram bàyyi yow la fi alaji mara alaji may bàyyi. dëgg la dëgg la. yoway taxaw Louga yoway taxaw Waqe yoway taxaw tund lépp lépp lu ñu fiy def te ñu jóge ci euh, baatu kër alaji ma ji njëriñ jox nañ la ginaaw loolu it noo ngi lay sant di la gërëm ala ji mu ngi jàll la goo xam ne gi loo wax waxu da bàyyi rek waaye doo ko jël dëgg la ñun nag tarixa bi dong la na am dëgg la amul lenn loolu tarixa Cheikh Ahmad Tidiane Touré yëngaluñ koog lenn itam waaw dëgg la ak ala ji mu ngi njare mi nga xam ne mooy suñu maam te nambatal ci ban ferti ñun amul lenn loo xam ne lii fenn fu ñuy yemaleeg tariixa Cheikh Mamadou Tidiane Chérif duñ ko yemaleeg lenn man sama bakkan laa ci gaar dëgg la ak Cheikh Karim mi ak Pam Ndiata ñoom ñu fi nekk ñëpp booy bu seen xel dal ci ñun loolu xam nañ ko baax ci yéen booy bu seen xel rek dal ci ñun na nga ko wax ñëpp nañ ñu ko yéen sax seen xel na dal ci ñun ñun ala ji ma ngi njare képp ku ko bëgg a suufeel sax eh, bu soobee yàlla daal jëfante koog yow jërëjëf te it yaakaar naa ne kenn du ko suufeel ci jamono ndax ñëpp xam nañ yow bu lu woon sama mbal ko lolu wala mu nonu baax na loolu daal ñu ngi la ci sante di la ci gërem ñu ngi sante mbay ngaay ñu ngi mara momu euh comme mom mbaara bi bayam jure sax man mom la jébal sama bop moy sama wasila ah. ñu ngi sante alaji alinte ñu ngi sante khalifa ñu ngi sante ñu leen gëna a ndawee góor jigéen mag ak ndaw dëkk bi yépp ba wuyu kenn xam lolu ah. ah xam nga sank dafa am lu ma wax ci bir njëriñ waaw lo xamé boko ko dégloo rek sa xel dina dal ah. dama ne téeméer yu xam alxaaji Malick du ma ne téeméer yëpp xam nañ alxaaji ma ngay njare de waaye juróom-ñeent fukki topp xam nañ alxaaji ma ngay njare wallaahi euh, ba ko yàlla defar ci Seydi Alxaaji Malick boobu mi ngi ñaar fukki at ak juróom ñuy gor jaksa wala njarne mu mukaddam yëpp ni alaaji Malik jiital alaaji Malik njëriñ ñu ne ko ndaw la waaw mu ne bu leen ndaw ci saayir di mag ci baatin ca barke bi alaaji Malik njëriñ jaral na ko wallaahi mu de ma dellu wax ci ne leen alaaji Malik njëriñ ak Seydil Haaji Malik soo bëggee xam nu mu mel da ngay boole ndox ak sukkër bu ku leen mun a teqalee rek buñ caxasoo mu loolu leen a teqalee kenn mënu ko. waaw kon nag tabaarakallaahu moom loolu moom wax na leen ko sànq rek. waaw waaw. ndax wax dëgg yàlla am na solo loolu daal ñoo ngi jégalu bu baax a baax nag. yow yow itam daal ñu ngi lay sant la gërëm seen taxawaay rafet na yàlla yàlla taxaw leen ci barke Tere Cheikh waaye lépp nag Mara. jërëjëf Mara itam xam nañ ko moom moom noo bokk nekk fii dëkk barki démb rek la fi jógee lu tolloog weer noo bokk. wallaay dëgg la. man ni sama nday ah, ah, ala alaji magey ko jur moy ay dara sey dam gay momi xamna ko cheikh mi do wax itam bayam abdou maram ala alaji magey ko jur ni ñepp ben la wallahi deug la ni ni ñepp di gëm ñepp di len sant jere jef yalla yalla contane dañoo sori nak waye na ngeen di ñu ñaanal motax ñu bayi len tag waxtan yi bayi len waxtan nañ ko enregistré won waaw waaw comme yeen fi ngeen nek fu sori bi ñu bayi bi ñu amé point nak ñu duggal len jere jef la tax ngeen xawone yag tu ñu ci jéggul nak bu def ngeen lu rafet. jërëjëf. jërëjëf. waaw El Hadj Maguette Ndiare waxoon naa ne yéen naka ngeen doon jàngee foofu. waaw man man moo ma may salatul fati. Mhm. moo ma jàngal naxu. Mhm. moo ma jàngal tasawuf. Mhm. moo ma joxit li may liggéey ci sama kurus gannaaw ba ma joxe dem ba yokk na ci liñ bi salaamaaleykum sax ne ma def nangam ak nangam. kooku kan la. salaamaaleykum. kooku kan la. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah la. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kooku kan la. naa def man a Khady Ndiaye Ndiéla Waake. Khady Ndiaye Ndiéla Waake. waaw. waaw yéen ñu ngi lay déglu. maa ngi fii ci Louga. waaw yaa ngi ci Louga. waaw damaa dégg émission bi rek. waaw kon ñu naan daw xamatuma su ko defee rek ñi ñi ñaan képp koo xam ne dugg nga soxna yi waaw nga jéem a gàttal ndax ñi bëgg a woote bari na lool. waaw waaw bisimilah. waaw émission maam bi di njëriñ moom. Mm-hmm. ku ci wax man wax ju man nga cee faral di dëkk ba te doo bay mën a jël par ñaar. asalaamaaleykum wa suñu xarit. waaw kay. waaw bisimilah. waaw kontaan naa ci émission bi. lan la kontaan. loolu siyaar Baye Dame ñëw. Mhm. di siyaar ñu nekk ñëpp. ñëpp daal alaaji ma ngi jërë moom. Mhm. ay kéem ku ci wax. da ngay sonn bàyyi waaye lépp luñ su ko wax. walaay dëgg la kontaan nañ suñ xol suñ nga teel nu mu eggale maanaam ci dundam ak li nga xam si ni nga ko doon eggale sànq. yàlla dafa dogal ba muy jàngi. waxoon naa ne bi mu dem ba ci armée dafa ñaan yett yow mu ñaanoon. nee na yal na ko yàlla may ndox mu waawaxee naan yal na ko yàlla wërsëgale xam-xam yal na ko yàlla wërsëgale salaatul fatih ndax salaatul fatih ne ci baayam la ko déggee booba te baayam boom ci tarixa xaadir la nekkoon yàlla nee ba mu demee Kër Mor Ndiane Cissé. ba mu àggee. mu ne ko foo dëkk mu ne ko njaree wàqe mu ne ko. Kër Mor la toll. Thiamène. Thiamène la nekkoon. mu ne ko luy luy sa yitte mu ne ko jàng si xam-xam mu ne koy sa baay mu ne ko a Ndiaye. mu ne ko moom Mor Mballa Ndiaye man maa jàng mu ne ko waaw mu ne ko man dey fii de ku fi bëgg xam-xam mu ne ko fii da mu ne ko mhm. fii ba fi mag maa Kawlax maa fi mag maa fi raw mhm. fii ba géejug mhm. Ndar maa fi mag maa fi raw waaye wësool gu àgg ci yàlla te saytaane amu ci wàll ko bëgg demal ci Alaaji Maalik est gu àgg ci yàlla te saytaane amu ci wàll ko bëgg demal ci Alaaji Maalik radiyallahu eh, anhu jërëjëf bu nu jël kenn ci ligne bi wala ñaar 967 43 00 salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. nuyu ñaan kuy dugg itam nga gàttal ko kan la. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. kooku sëñ Mbaye la. man la Sadio ah yow soxna moom boo jëkkee woote ci njëriñ. waaw ah. rajo bi la fay njukkal rek moom yaa la lépp lay woote. waaw ah, maa dëgg la. ndax eh, eh. dëgg la. waaw eh. dëgg la daal. dëgg la géej la da ngay tànk sax waaye du jeex moom kontaan baax na leen yàlla fayal wallaay dëgg la parce que sëriñ daam gay ni maa ngi koy sant bu baax waaw mi ngi lay dégg waaw yéen a ko yàlla fay amiin amiin sëriñ daam gay am ni mel fii wax dëgg yàlla heure hmm. benn problème moom wallaay man da cee bokk nag moom ndax fi la dëkk hmm. ndax man sama jaam la hmm. waaw yéen moom ko yàlla fay daal amiin amiin moom kontaan ci yéen baax jërëjëf daam ngi lay dégg waaw tabaarakallaahu kon nag ñu euh, jëlaat keneen détuwaat ci bàyyi bàcc fekkee ne Boubacar am na ko ne ci ligne bi mu nekk loo xam si salaamaaleykum salaamaaleykum. salaamaaleykum kooku kan la. man la maam Seyim El Hadj maam Seyim El Hadj Makhtar fan nga wootee. maa ngi fii Louga. yaa la. Mbaye Ndiaye ba El Hadj Samba ah Ndiaye. neen Ndiaye. yaa ngi alhamdulilah kontaan nan de. yàlla yàlla kontaan. kontaan nan trop. yàlla yàlla kontaan. yéen saa suñu maam suñu xolli seet nga bëggoon reer sax. wallaay dëgg la. ana Pape Dame. Uh-huh. ana Pape Dame. waaw baal ma jox la ko. jox ma ko Ndiaye na nga def maa ngi rek gay. Ndiaye ana sa yaay ana sa yaay. loolu gay. ana soxna kon tax nan de. ndilaati waay yàlla na yàlla. waxtaan bi maa soo xoli sedd la guy. jërëjëf Ndiaye yàlla leen yàlla fay. amiin Ndiaye jërëjëf parce que alaaj magi Ndiaye. amiin Ndiaye. ana sama papa. ma nga fi. baax na jot ko. ndilaay mi ngi sant yéen a ngi si jàmm. baarakallah yàlla leen yàlla fay. amiin yàlla baal mi. amiin amiin Ndiaye maa ngi lay bàyyi Ndiaye. waaw nuyu na sa yaay. kon jërëjëf Boubacar ñu delluwaat ci sunu bàyyi daam ndax moom alxaaji Maguette Ndiaye daana def liñ daan tudde xar baax waaw lu jël ki ci ligne bi soo ko dellusiwaat. salaamaaleykum. waaw allo. kookan la. salaamaaleykum. maa ngi salaamaaleykum kookan la. man la Maguette Ndiéré. Maguette Ndiéré fan nga wootee Ndiéré. waaw maa ngi Ndiéré ko waaw. waaw kon ñu jox la Baye Dame. Mhm. waaw Baye Dame. Mhm. waaw na nga def. ñu ngi leen di bu baax. yal yàlla bool na ko Ndiaye. alhamdulilah. delloo nañ leen siyaare gi. waaw ñoo ngi dem. waaw kala Ndiaye. waaw ñu bu baax. dëgg la jërëjëf. Ah, yàlla dogal na teewoon nañ ko sax. dëgg la waaye nag du tee ñu war tamit joxe suñu contentement ak suñu euh, suñu mbégte. dëgg la jërëjëf. moom daanaka li ñu ci hmm. mooy li wax mooy daanaka bu ñu leen joxee exemple mooy ñu mën mooy muy mooy suñu Babacar euh, Alaaji Malick. est-ce que. di sëriñ Babacar taxawoon ak ñu maam Alaaji Malick. waaw hmm. ah. dañu mel ni sëriñ Ba euh, Aboubacar Sadiq. Hmm. li mu meloon ci yonente bi. dëgg la. moo tax ñu rek moom moo tax. ñu fi bàyyi ko waaw gàmmu ga njëkk a gàmmu mhm. góor gi Lamine Ndoye def ne alaaji mag yi ni mu mel butéelu at koloñ bu sikki mhm. bu ñu teg ci digg taabal mbooloo wër ko mhm. mu kalaate kenn ku nekk dafa defe ne yow rek la xeeñ waaw def benn paale sax naan euh, ma doy man moo di góor gi ma doy. waaw kon daal na pen dana jàpp naa ko dootuma ba. góor ku baax day ñëw ci penc Seexu Maguette toogal te jàpp ci moom te xam ni am nga ku baax waaw kon daal ñu la ñuy bàyyi ba dégg kon ñu di déglu incha allah. tabaarakallaahu jërëjëf kon xam naa suñ Boubacar si nekk technique bi ñu bàyyi ligne bi salaamaaleykum. kooku kan la. asalaamaaleykum. maaleykum salaam kooku kan la. man la soxna maam xarit. soxna maam xarit fan nga wootee. njëriñ wàqi. njëriñ wàqi. waaw doomu Alaaji Taala. waaw bisimilah. Alaaji Talla. waaw maa ngi lay xamee naa la baax. émission bi kontaan rek. ci uh-huh. waxtaan sunu maam. waaw uh-huh. ah, kay jërëjëf ana ñu sama maam sama maam Dame Gueye. waaw mi ngi lay nuyu mi ngi wax yow. suñu xol sedd na guy. Uh-huh. suñu maam moom wax dëgg yàlla moom. lu baax rek wax dëgg yàlla yal na yàlla royloo ci moom bu baax a baax a baax. allahumma amiin ah, waaw kay. waa jox ma ñu jël. salaamaaleykum waaye salaam wa rahmatullah. ma la Astu Sey. Astu Sey. jërëjëf waay. waa bisimilah soxna Astu. naa def. sant yàlla bu baax. kontaan nañu ci émission bi. yàlla yàlla kontaan. yal na yàlla taasi barke. amiin yaa rabbal aalamiin. nu nuyu baadaam de. Mm-hmm. ak ak kee bàyyi bàyyi bàyyi. ñëpp daal ndax buñ limee dañuy juum. ñu ñu nekk ñëpp toog toog. Mm-hmm. Mm-hmm. kon tabarakallah mu nek lo xam ci am sa Boubacar nga may ñu teelu liñ bi tuuti eh, dañ la laajoon sax ndax dana def ay xarbaax wala mu togum yag mu wax lo xamni manam maanaam dinu ko moytu lo la ah, def nako ba tay mm-hmm. ci la mm-hmm. nana mm-hmm. dafa massa dem Tiwaawan yalla dogal test am fa test moy febar bi don rayee waw ñu 40 dekk ba mu bayyi soxna mu tollub digënté bàyyi mel ne mag mu bokk ci dëkk bi mag ma feebar. tey mu ñett yu waaw. Mhm. nee mu tëdd ba guddi mu ñaan yàlla ci barke Seydi Hadji Malick. Mhm. yàlla na ko yàlla xamal mbir ci lii. Mhm. nee ba mu ne kay Seydi Hadji Malick ne ko. soxna Seydi yeewi ko na waaye ndoom sa dellu na. diwit faatu na. tey nee bi mu xëysee. nee rus naa siggi xool ko. nee keroog it la mujjee ñaan ci barkeem. ci barke Alaaji ndax ne su ko defee day mel ni cirque Mm-hmm. lu mu xalaat rek yàlla defal ko ci barkeem. maanaam bokkaale yàlla daal. waaw mm-hmm. mun dafa ne lu mu xalaat rek. Mm-hmm. yàlla defal ko lool ci barkeel a ji mag. waaw. kum bareewoon ay xaar baax la. am na bu ma di ñaanal nit. dawul bind moom ci boppam ñaari yoon laa mos a gisee man mu bind. bind ci loxoom bind ci loxoom. benn sama rakku papa a jaan mat. juróom benn fan am na ko jaan jëtta wàcc. keroog ba alaaji sax dikkee wax ko keroog moo bind saafara sa boppam jox ko. alaaj Cheikh Gaye fa la dëkkoon moom sama doom bàyyi la suñuy bokk bàyyi la dëkkoon Louga wala waaw déet ma nga dëkk ah, waaw mhm. beneen bi ko des mhm. doom magi magi Cheikh Tidiane mi doon woote ci France mhm. papa mi bokkal bàyyi yaayam dafay def doom ju mu jur bu tolloo ci fer rek bu fer rek daal di faatu sunu borom keroog ba ma koy feral sëriñ bi ne ma bindal ko feral gi ba ma yëkkati allo ji ba fab xalima gi tàmbali mu xool seen yaayam muy jooy mu ne ma jox ma allo ji ma jox ko mu bind ko ñaar yooyu laa mos a fekk mu bind lu dul loolu dafay bind joxe mm-hmm. am benn waay boobu nag ca ngomeen la mu bundi ko bindal téere ñu bindal ko téere ba mu di ko lem mm-hmm. ndake waa ji wattu woon na alquran mm-hmm. mu teg baaraamam ca arafu ne ko araf da ko yàq mu ne ko waaye yàq gay faj sa mel ne jiit da ko fet kan kan kan kan moo bindoon téere boobu waaw ah, moom dama leen ne woon dawul bind xale yi la daa bind. xale yi ñoo xaawa ah, xale yi ñoom ñoo. ñoo bind ñoo dama araf. waaw. ma maanaam léegi comme masalan si rek bu yàggul gis nañu euh, benn waay boo xamee dafa demoon kër sëñ Mamadou Mansour. boroom daara ji yàlla na yàgg te wér. mu dem ne ko di ko ñaanloo mu ne ko di génnal ci biti tibbal ma suuf waa ji génn suuf tibbi suuf sëriñ bi delloowaat ko ko mu ne sëriñ bi daal daf daal xam naa xeeb na ko. sànni ko mu mu tàkk. waaw loolu am na kër si mooy loolu lool daal ku nekk ñu jëlaat ligne bi. ci 900 loxo boobee moo ko rey. loxo boobee moo rey waa ji euh, kon ñu jëlaat euh, kenn ci ligne bi 967 43 du ndax Baye Bàcc de wax am na sol lool salaamaaleykum mbokk mi ñu wàññi rajo yi wàññi rajo bi boo bëggee déggante allo. waa boo fajul rajo bi duñ mën a wax ak yow kon ñu ñaan auditeurs yi ak auditrices yi ku ci wootee da ngay rajo bi mooy tax mu mën a wax ak yow te ku waxit nu ñaan nga gàttal ko salaamaaleykum mbokk mi. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah kookal la. Babacar. kookal la. Alaaji Dame Ndiaye Ndewen Allé. Alaaji Dame Ndiaye Ndewen Allé. ah yow de mbokk nga xarit nga. kuñ tudd ngeen dëkk Kër dëgg la. xam nga dama fay làqu si waaye foofu laa dëkk. la. <laughs> walaay xam nañ ko booyee moo tax ma ne mbokk nga lépp nga. fokk ñu dugg ci thème boobu. waaw El magi Maguette Ndiaye. mbirum El waaw. ndax li ñuy wax loolu xale yi di wax naan xamuñu ci moom dara. xam na ni day am day xa day am nu mu waaw. waaye ñoom liñ am man na waar na seen seen bàyyi xamuñu ko ñoom ñu dëgg la de. waaw li seeni maanaam El Hadj Maguette nii boo ko li ko yàlla mayoon. waaw. doo ko xool dàgg sax nga def ne El Hadj Maguette dëgg la. te lu gën a jëm ko di gën jëm kaw ndax mbirum yàlla la. allahu akbar mbiram day jëm ko waaye du jëm mukk suuf dëgg la njaay ndax boo demee ci àll bii hmm. gis mboolem xale yi sant njaay doo gis kuy jaay dorog doo gis kuy jaay lenn lu mooy dañuy xëy di liggéey bu ñëwee di wàccee kër nit te kenn ñuy jaay dorog ñuy kii kenn du ci tane lay seede nga lu baax nga xam ne am na lu leen topp hmm. loolu moo ko ne damaa yaay yetti mbuus hmm. mbuusum Demba Njare ak mbuusum Alaaji Malik ak mbuusum ko yàlla defal defe naa ko ne loolu dëgg dem attar te dafa ak benn taalibeem bu ñuy wax na dama fàtte Jomboxa. Jomboxa Aliou Jomboxa waaw Aliou Jomboxa. Mm-hmm. ku ñuy wax Maxataan. Mm-hmm. sans bàyyi ni mu. Mm-hmm. yàlla doon ñu tase fa man demee fekk max yu ñoo ko attaar moo ba bi bi ñu demee ci maxa daal di daal ma wane ma surtout dem ba njëriñ léegi nii kër gi bële ji mi ngi njëriñ nii kon numéro bi am naa ko li ma bëgg daal mooy jënd dëkk Jomboxa ne man de Jomboxa am turam boo ko bindoon jox ko doo ko dama wax toog ma toog dama xanaa xam nga mooy faane mu ngi jël. est-ce que loxo mbay bu nga dem ci. Mm-hmm. ci fajar nañ ñu fëgg. dëgg la. di jox waa ji déplacement mu muy muy dem muy dem muy dem fële. Mm-hmm. <laughs> muy dellu noor fa. dëgg la kooku xam nga mbirum sang boobu mu tëjoo loolu. demee na. Euh, ndox mooy mooy dégg naa sama moo xam ne man Alaaji Taala Penda mooy sa papa sëñ Taala Ndiaye mu ngi jël muy ñaan ndox mu ngi ñaan ko ah Alaaji mu ngi ndox jafe ci wax ji mun a mu ne dana weesu wax. diggante bi bu ñu ñëwee daa jàll ba Balanguer. est que. waaw dana weesu wax. Mhm. keroog bi ñu nee euh, waaye bi dem na Balanguer sans papa daf ne waxi wàllu wii koo xeeb. Mhm. waaw daf laa dugg. dem na jamono dem na jamono it. waaw dem na daal fàttaliku baat boobee. nga xam ne kon waxi wàllu leneen la foofu bi ci waxee def na fa loo xam ne lii yombul. waaw ndax boole askan wu toll ne ndax doomi soxna yu ànd dafa jafe waaye wax nga it loo xam ne benn bopp rek lañu dëgg la amul ñu te gàmm nga boo demee doo xam ko moom gàmm nga xam mënoo ne doom yi lépp ci àll ci àlla mu ngi jëral lépp ci àlla ji mu doo xam ne doom yi doo xam ne soxna yi boo demee caar me doo xam fu kenn féete daanaka la fa nekk ci ay ñeeyo ki sax mënu leen xam ne lépp ay tërëb lañ dëgg la ñun daal émission bi sant nañ ci lool di sant sëñ Dia moom di sant ñoom ñu yéen ñi ko jëkk ñëpp. Mhm. ah li ñu waroon bu ñu yëgoon kii bi dañ dañ dañ fiy teew ñu ci xelal ci xam. wallaahi ndax liñ ci xam bari na ñu soxla ñu soxla nag noo ngi nuyu suñu mbokk yi njëriñ yooyu. da ngaa ñàkk kañaan rek. waaw Samba borom dëkk boobu. Mhm. waaye Samba Kumba. waaw ak Cheikh ak Cheikh Fall moom. Mhm. France ak ñu ñëpp. kenn ku ne naa dugg ndax wóor na la fii ne fu ñu tuddee alaaji mu kenn ku ne bëgg jaa dugg wax ca la nga ca xam. dëgg la waaye nag euh, gannaaw waxtu yi noonu la demee. Hmm. Ah, euh, lu ñëpp soxla. dafa hmm. waaye mu war mu war laa doy. Hmm. loolu rek la demee. dëgg la waaw ah, wax dëgg yàlla kontaan nañu lool. lool yàlla yàlla kontaan waaw jërëjëf. waa jërëjëf Serigne Talla Ndiaye Serigne Dame Ndiaye bu Baye Talla Ndiaye woote ca Ndewen Ale bu Daaru Kebe. asalaamaaleykum mbokk mi. asalaamaaleykum. waaw doo wàññi rajo bi la. wàññi rajo bi wala nga fay ko kokan la. waaw maa ngi dégg la. man jaay ma yàgg man monsieur Gamba. ah. monsieur salaam wa rahmatulah. Serigne la. man la Soxna Awa. Soxna Awa Ndiaye. waaw kay Ndiaye. waa Ndiaye. Ndiaye. waaw ne nga den doon def da mën a dugg. waaw kay xam nga. ma ne ñu ne ci barke maam El Hadj Maguette Ndiaye. waaw ma sëñ Mbaye. loola Samba. danaa ko gàttal waaye. waaw. il faut ma wax ci ay baat. waaw bisimilah yaa ngi dugg. ndax sama maam. Mm-hmm. muyum Ndiaye. Mm-hmm. moom moom ñoo bokk ndey ak baay moo jur yi. Mm-hmm. di waaw moo jur sama yaay. moo jur sa yaay. waaw soxna Mbène Ndiaye. kon sa maam la. xam nga luñ ci wax rek. wala fi dañ ne gone lu mu wax te jëlewu ko ci mag rek. du dëgg waaye wax nañ dëgg léegi man li ma jëlee ci samay maam. Mhm. ñu ne maam ma gi njare. Mhm. nee na daal ku bëggoon ay tool la. Mhm. moom nee na bu coor bu cooroon ma saa jot. ku mu àndal tegoog yow mbagg. nee na nga ne ko man ma gi du ma bay ren. nee na mu teggi mbaggam. est-ce que. moom nee na bu bu ma saa jógee ca tool ya. bu ma saa jógee ca tool ya. waaw bu ñëwee ci ci tiili alxuraan bi lay ne. bu jógee ci alxuraan hmm. di dem dem ca jàkka ja. ca jàkka ja. waaw bu jógee ca jàkka ja. Hmm. Hmm. kon tabaarakallaahu mbokk yi dégg ngeen kàddu yu rafet yi nga xam ne rotal na fii ci bis bi nga xam ne tabaarakallaahu doon nañu waxtaanee maam sunu maam ji jeex maam la njare gërëm sama wëlëre boobu yàlla yàlla yokk leeram di sëriñ dam jay Ndemène ale waaye gërëm itam ki nga xamne moy Serigne Mara tay di khalifa bi te jamono bobu nekkon mu nekkon porte parole bi waye Serigne mbay Serigne tala ak ñi ko bokkal ñom ci khalifa Serigne Cheikh suñu bàyyi tabarakallahu imam ñom ñep ñu wax rafet suñu mbokk alxaaji tiara waye gërëm tam njabotu ki nga xamne moy dam daam Baye Dame Gueye yàlla jamono bi ñi def. li nga xam ne mooy waxtaan wi euh, su damay juum di wax Baye Bathie Gaye Baye Bathie Gaye sunu borom tabaraka wa def ci kéemaan ndax Baye Bathie Gaye moomu mooy wax tey doomam bu jigéen sama taaw bu góor moo koy denc ci biir kër gi yi nga xam ne nag fii lañ koy defee tey kon tabarakallahu gis nga suñu borom tabaraka wa taala faalu li maa yurid kon yàlla mi nga xam ne mooy borom jaam ni yàlla na nangul suñuy yéene ak suñuy ñaan ñun ñëpp ñaanal way dawlu yi ñii fi des itam yàlla bàyyi leen fi lii moo waral seen seen youtube bi tudd Mbadiar TV seen doom mbajaar Ndiaye ba Mbadiar ko pour rek fàttali waxi mag ñi kon na ngeen ko partagé ci barke ma Mbagey Njare waaye itam ngeen abonné bu baax ci site bi. kon tabarakallahu euh, di gërëm suñu partenaires yi nga xam ne nag noonu yi jàppale ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu sit bi mën a taxaw nam ko bëggee kon nag euh, dañ leen di bàyyee ak seen programme suñu technicien Baye Mass Ndiaye kon daal Serigne Dame Gueye yal yàlla yokk leeram ak euh, ñam fa tëral yëpp mun noo tudd kaaja tudd na suñu xarit Modou Gueye tabarakallahu ah di nuyu itam sunu baay moor gay ca Kaajar nga xam ne moom itam ak sama waajur yoo meññ ñoo bokkoon daara ci kër tabarakallahu alaaji Abdoulaye Kebe ca Paqe ñu ngi koy ñaanal di ñaanal soxnaam di sama jigéen yi tabar tabarakallahu nag ñuy déggante yàlla yàlla defal na jàmmi am na jàmmi laaxira di ziar njabootu Baye Dame Gueye njabootu Baye Bàcc Gueye eh, ñoom ñëpp tabarakallahu góor ak jigéen mag ak ndaw waaye nag. sunu goro bopp bi nga xam ne sunu doom a koy denc si biir kër gi soxna Penda Gaye moom itam koy ñaan la gudd fan ak wér tabarakallahu di ko ñaanal ñëpp kon daal lii la leen seen mbokkum taalibi Mbaye Ndiaye bu indi loon ci jaar-jaaru mag ñi fàttali nag première ak deuxième bi mooy troisième bi man nga ne lépp ci Mbadiar bi jaar-jaaru Mame Gueye Njare xam naa sëriñ daam sax euh, dafa am cassette bu des waaye ëpp na lii ndax fii mooy téléphone yi rek jërë ngeen jëf. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rawatina nag yéen ñi nga xam ne xam ngeen bay jaar ma jaar bu baax ci faj bi nga xam ne mu ngi koy faj fajub aada ak cosaan waaye it xam ngeen koy ci wàllu ñaan yi nga xam ne daf koy falal di ci dimbali doomu aadama yi moom bay jaar ma jaar nag mooy yëgle ni que képp koo xam ne amee nga jafe-jafe lu jëm ci wàllum ndoxum siti ku rëbët jàngoroy kajoor moom Mbaye Ndiaye Madiar nag mu ngi leen di yëgal ni ku ci amee yooyu yëpp nag bul jaaxle ñëwal yàlla may na ko ci bu baax a baax moom nag xam ngeen ni ku ko soxla danga koy fekk foofee ca Madiar wala nga woo ko 77 654 53 72 77 654 53 72 ñi nga xam ne aussi dañoo amee far wala jëkkër rab ak ñi nga xam ne aussi bëgg nañoo xam seen avenir ëllëg ñoom ñëpp nag nañu dem seeti ki nga xam ne moom mooy Mbaye Ndiaye Madiar ñu ràññee ko lool nag ci taxawaayam ak pas-pasam ngir jàppale doomu aadama yi Mbaye Ndiaye Madiar mooma nag moo leen di yëgal ni ku ko ci soxla ku ne rek mën nga ko woo ci numéro yi wala nga fekk ko foofee ca Madiar wala bu ngeen nekkee ci diwaanu Géewul ak li ko wër mën ngeen ko faa xaar altine bu jot mu ngi foofu moom Mbaye Ndiaye Madiar